nii rek gàggu tey yi ñu ngi nii ci signature bi 4-4 bii nekk. noonu ndeysaan ma nga noonu la séant di Bawol ma nga noonu moo bëreeg Zos daan ko ma nga noonu moo bëreeg Yékini Junior aller retour daan ko ma noonu moom Tapha moo bëreeg Talla Gaynde daan ko moom Tapha Tine bari na ndaxtaan yoo xamante ne bëri na ak ñoom ci làmb daan leen moo daan ne B52 de Mbour moom xamante ne am na cër ci làmb. ndaanaan la boo xamante ne làmb bàyyi nañu ko xel tey gis ngeen ko nu mu def muy laaleeg xale bi nga xamante ne mooy doomu pikin bi moom booy ñang ndeysaan tafaatin nañu noonu signature contrat bi mu ngi dem sama xel bi tafaatin di bëre ji départ am yëm daan départ ci làmb délégation bi mu daan àndal tafaatin tey moom la àndal mu ngay léemu ndeysaan ma nga sol benn blouson boo xamante ni Zador moo ko sponsorisé moom tafaatin a ngi noonu ay mbokkam a ngi noonu ay njëkk a ngi noonu écurie Bawol kenn desut bis laaj loolu wala Tapha Tine laaj loolu Tapha Leer ngi nee ci wàll wa ndeysaan Njaay Tine rakkam ngi noonu lamba ngi nii Tapha Tine ngay léemu <laughs> ay lamba garaaw lamba yéeme ndeysaan daa indi concentration bu ma jaaxal ci lamb ji waaye bis bee noonu ndax boo duggee Pikine laaleeg Ama Balde mu am nu mu demee nga duggaat biir Pikine laaleeg koo xamante ne yaakaar la biir pikin foo am foo xamante ne di nga ko wane ci làmb tey looloo tax Tapha Tine actuellement ni ci signature bi ba ci làmb ji du maye dara. daa mel ni léemu na ba pare. léemu na ba pare day wàcc léegi day xaar ñu wax ko mu wàcc mu wàccee ñu xool ba tànk lay jiital mu wàccee ñu xam lan lay léemu ndeysaan en tout cas daal xam naa ne bis bee toll noonu moom Tapha. aj na wér ndeysaan kàggu jëlal ndeysaan le géant di bawal a noonu jël na benn téléphone daa nar a wuyu de ku waxal kan la Fatin nar a waxal <laughs> ndeysaan làmba gi ndeysaan làmba gi ndeysaan Tapha Tine sama xel dem na ci tàkkusaan ba mu doon bëreeg Abdou Diouf Ndeysaan sama xel dem na ci takkusaan bu mu bëri gi Yékini Junior. Ndeysaan sama xel dem na ci stade Jom Iba Mar ba muy bëreeg Taale Gaynde. Ndeysaan pare na léemu léemu na ba pare jël téléphone bi li lay wan ni làmb lépp tegtal la fi mu toll nii day woo sëriñ si ñu wax ba xam mun ngaa wàcc booy wàcc nooy def da am njàpp wàcc. wala booy wàcc da ngay jiital sa tànk ndijoor dañ lay tegal poftan wala nen ngay toj loolu yëpp ay tegtal la yoo xamante ni dafa bokk ci làmb ndax ñoom mbër yi amul kenn ku ciy dem ak sa conscience bopp képp kuy dem dañ lay digal soit say sëriñ digal la say coach digal la wala say grand frère ku ci nekk na la boo demee waxeel nii defee noonu waaye gis nga tafaatin mu ngi concentré wu ci oto bi rek di xaar am na solo mystique dafa bokk ci lamb boo xoolee oto bi yaa ngi gis uh, benn kaamil alxuraan mm-hmm. waaye moom tafaatin ci boppam mu ngi takk morso bu xonk ci loxo ndeyjoor bi gis nga bee jënu kooba bi waaw gis nga bee jënu kooba bi lamba garaaw lamba garaaw lamb gis nga am na leket buy génn la ba suuf la def xaw ma suuf lu mu doon suuf daal la def benn benn siwo la suuf bu tooy la suuf bi na xaw ma jëriñ xëy na tabaatin mi ko war gis nga ma ngay wuyu bay wuyu sëriñ si faw ñu wax ko na pare na dugg rek lay waaj dégg nga mais duñ ñu mën a may ñu am ci li Tafatine di wax ndeysaan dégg nga ñu ànd ak Tafatine nee nañ sécuriser leen fépp bu leen maye dara bu dara sedd bis bee toll noonu bis bi moo toll noonu. ndeysaan. Tapha Tine yegg si na. waaw Pikine yëngu nañ. tey bëri nañ arène nationale am ñaari ndam. ndeysaan Zak Zak de dafa daan soq daan. ndeysaan booy ña nga war a jóge Pikine léegi départ ñëw. xam naa ne ñoom ndax ñëw waa waa Leewtoo yi ña nga di xool départ booy ñang ndax ñoo indi léegi. Tafatin Tafatin daal xam naa ni dinañ xool ñoom ñaar kan mooy njëkk a dugg si ci biir cosaan waaye xam naa ne signature bu neex la daal waaw waaw signature du yomb. neex sax. mu ngi yor béjjënu kooba bi ci loxo bi. du yomb ñu ngi gis ñaari morceaux si loxo yi loxo ndeyjoor bi bu xonk loxo. Ndiaye lu ngeen xaar pour dugg. pour dugg gars yi dañoo pareegul quoi. ñaan non est du ñuy ñoo pareegul. léegi looloo tax ngeen di xaar. waaw ñoo ñu xaar xaar bi bu ngeen xaaree ba booy ñang départ ñëw ngeen daje ci bunt bi du indi ay njool-njool ci ci ci dugg. jafe-jafe du andi jafe-jafe. pare nañu lépp. pare nañu lépp. ñu ngi lay fay soxna si. ah, ah ñu gis ne jiitu xam naa ne yaa mu ci yoon bi noo leen waajalee. waaw avant di nuyu ñëpp. di ziar ñëpp di leen baalu àq ci weeru sel wi ñu jili maa lay ziar di la ziar yow tamit borom euh, waa Dakar Buzz nu raw nag comme niñ daan waajalee yeneen combat parce que combat bi moo toll noonu quoi waaw. tey mën nañ xaar mbër day bëree wala day xeex. waaw xam nga làmb moom làmb bëre dóor la ñuy wax bëre dóor mais comme Tafa gars yi nee nañ dafa mën a xeex maa ni moom tamit au passage c'est un très grand champion. Euh, j'ai beaucoup de respect pour lui mais moom mooy seet bu ko neex ma Tapha mooy seet waaw moom mooy choisir bu ko neexee ñu xeex ba pare door a bëri bu ko neexee tamit ñu bëre mais ci kàttanu suñ borom moom yàlla ñu yàlla may daal ñu fekkee ko te taal ko incha allahu rabbi. Tafa xool ni amoo leen at mosoo leen am adversaire bu mel ni Tapha ci taay bi ci dayo bi ak poids beeg yëpp mais yéen a ngi jël combat bi mais dafa mel ni di ngeen ko jël à la rek di ngeen koy jéggi jaar jaal. non pourtant sax de jëluñ ko à la de mais nag miin nañ bëre ak poids lourd parce que boo seetloo ci suñu ay mbapat. ba fii ñu toll tey ci tafaatin yàgg nga dégg combat booy Niang ñu ne la moo diw gaa yi ne arbitre ko arbitre siffle moo tee mu daanu mais après da ciy génn avec la manière tafaatin champion la comme ni ma la ko waxee mbër la poids lourd la mais xam nga làmb pour nga yegg fenn fi il faut nga daan ñenn ñi. mais daf ne dafa am erreur bu mu defoon ci Ama Baldé bëgg rectifier erreur boobu ci ci ci booy Niang. tafaatin moo wax loola. moo mais xam nga saaga yàkkamtee xeex la. waaw saaga yaakamtee xeex la affaire bi comme sore soreetul non Tafa lu mu yor non champion déggoo la mais Tafa lu mu yor ba tax mu am confiance wax loolu lu ko raw moo ngi ci ñun lu leer laa lay wax jéeli. booy nag mi ngi fii mi ngi fii soriwul. laaj bu ma la gis ay jarul. bëggoon laaj est-ce que yéen a ngi tàggat xale yi instant bi ci non violence bi parce que lamb ji violence bi liñ koy tudd dafa bëri trop trop trop. waaw xam nga booy ñaa moom mooy ambassadeur de la non violence. franchement ñii ñu àndal ñi ñëpp tey dañ ñëw ànd ak ñun ñu supporter seen mbër mais nag ci fair play ci yar ak teggin parce que sport day boole mais du taxale te ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay na ku ne ñëw rek supporter seen mbër ci sportivité après buñ fi jugee ñu dem mais affaire bi dëgg la huit août la incha allah arène nationale ci kàttanu suñ borom. def leen ndànk def leen ndànk. ndaysaan ma nga mel ni booy ñang daa war a si kaay. demal ndeysaan baal ma Boy Niang ngi noonu Boy Niang ngi noonu le fils de Déggo la ngi noonu xoolal Boy Niang la mu takk xoolal la indi waxoon naa la ko waa Pikine la dañoo mën bis bu ñuy ñëw signature contrat dañuy mel ni kuy bëre si ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan gaa yi ngi noonu ndeysaan Ndeysaan booy ñaa ngi noonu. cey lamb. booy ñaa ngi noonu. buntu cosaan ngi noonu. la ma leen doo wax sànq ngi ni bu ñu dajee ñoom ñaar. ki wàccagul kii wàccagul. bu amee rek ma xam ne. lépp dëgg la. booy ñaa ngi noonu di ñëw. saan ma nga noonu di ñëw na ngay bàkk booy ñang ndeysaan oto booy ñang noonu oto baa ngay xuus jëm buntu cosaan ndeysaan ka gu avancé ci kanam ñëwal kay. gis nga li ma la doon wax. gis nga li ma wax. Boy Niang moment bi mu ñëwee. waa Tapha Tine nee dañuy wàcc dugg ci biir. te fii amul benn sécurité. pour ñoom. mbër yi ñoom ñoo war a mën a defaral bis bi liñ ko mën a defaree mooy ñu xaar kenn dugg su noppee keneen ki dugg waaye en tout ñu ngi buntu cosaan bu tafaatin ñëw na pendant trente cinq minutes dugg booy ñang dugg si na bu mu ñëwee bugg a dugg waa tafaatin yi nee nañ dañuy dugg léegi na leen xool ñoom ñaar kan moo ci njëkk a dugg wala nu muy demee ñu xool fu wànnante di mu jékki gëtam ndeysaan ñu ngi noonu booy ñang noonu di waaj a ndaysaan booy ña ngi noonu di waaj ndaysaan booy ña ngi noonu ndaysaan booy ña ngi noonu di waaj gis na noo ko misil waay oo oh!